mbokk internautes yi euh, mbégte la ñu am saa su nekk di leen nuyoo si seen première site d'actualité à Thiès de Thiès Info tey nag ñu ñëw fii ci kër Cheikh seet si ku ñu naan Omar Badiane Omar Badiane nag muy président mu euh, parti alternative sénégalaise xam naa laataa ñuy dugg ci question yi rek ñu jox ko mu nuyoog yéen. waaw jërëjëf madame donc maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di nuyu waa Thiès Info di nuyu vraiment équipe bi nga àndal yëpp vraiment di leen teeru. aussi tamit di nuyu tamit vraiment profito vraiment di nuyu waa diaspora bi nuyu waa Sénégal ñëpp ñëpp ñëpp vraiment di baal ñëpp ak di souhaiter ñëpp aussi une bonne et heureuse année si année musulmane bi nga xam si lañu dugg quoi. d' accord ñu fas yéene sekk ak moom rek waxtaan wu yaatu jëmale ci langue politique bi xam naa laataa loolu rek dañ koy jox rek mu laaj ko lan mooy parcours politique gu euh, Omar Badiane mu fàttali ñu ko rek. <laughs> bañaa def naa parcours politique am bon je pense que ni yàgg na si terrain parce que ñun militant PDS la woon yàlla defal aussi ñu jiite cadre PDS fii à Thiès bi ñu jiitee cadre PDS yi aussi on était conseil municipal au niveau de la grande maire euh, au niveau de la maire de Thiès parce que maire Thiès fi nekkoon euh, le maire à l'époque jox ñu sa délégation de signature ak euh, jox ñu commission aménagement urbain environnement assainissement donc vraiment qui avait travaillé sur en plus aussi nekk naa si mouvement associatif yi dans le sport nekk président euh, coordination nationale des cadres du du des clubs du Sénégal qui avait rejeté qui avait rejeté les textes qui avait rejeté les textes de la FIFA donc mu indi football professionnel bi loolu donc c'est c'est c'est c'est dans ce cadre là nekkoon président Mbaxaan donc peut-être sommairement loolu <laughs> laay wax mais yàgg nañ si politique bu baax a baax ab fi lañ jógee nag bon maintenant former sunu parti. ma alternative sénégalaise yàlla def ni ma àndal ñu teg ma seen seen seen si si kanam parti bi donc loolu la ñu ngi fi vraiment di jéem nag nekk fii Thiès aussi yor suñu butigu naar kon mu koy waxee <laughs> yor suñu liggéey bopp dem di liggéey quoi donc loolu la quoi donc vraiment di am yéene si dëkk bu baax a baax voilà. d'accord Omar ñu gis la ci élection locale yi ñu weesu rek yu 31 yu 23 janvier yi passé nga nekkoon ci benn coalition bu ñu naan avec kat yi ngeen campagne yoon def ci campagne bi am solo euh, bi yoon ñu gis la rek nga dem jàppale ji waaye wi Askan Wi pourquoi ce choix parce que waa Yewwi euh, ba élection locale yi say say say kii lañu ñu woon say adversaire la ñu woon lu tax nga jékki rek rel yeewu bëgg a dem jàppale leen boobu nan nga ñu koy expliquer. voilà malheureusement Sénégal foo waxee ñu ni ñu ni ralliement quoi bon ñun ñun nous sommes un parti politique ñun dañoo bokkoon ci élection législative yi dans la coalition Jàmmi Gox yi Fadel Barro nekk tête de liste j'étais le troisième sur la liste nationale bi ñu ñëwee ñu rejeté ñu ci parrainage bi ñu def suñu recours le conseil constitutionnel ce s'est s'est trompé ni suñu dossier est irrecevable parce que suñu mandataire indiwu ko quand on a donné les preuves pour ne suñu le conseil constitutionnel dit que vous avez parfaitement raison mais je ne peux pas me dédire lii moo tax bokkuñ ci élection yi ban fa ñëwee def nañ benn programme penco nous avons rencontré tous les chefs religieux du Sénégal pour leen ci enjeu jeu bi Sénégal ni mu nekk ak yi xam ne mën a war a waxtaan loolu ñu ci exclure kenn ak conditions yi nga xam te moom la moom la conseil constitutionnel di indivoité beneen constitution di indi édition yoo xam da nga ko solutionné loo xam te ji bi ci élection leneen donc ñun ñu ngi doon ci baat ci loolu maintenant nous sommes des acteurs. ma dégg la léegi rek doguma la nga ni jàmmi gox yi ngeen ngeen bokkoon pourquoi nga jógee avec liggéeykat yi wala yéen yéen a àndandoo dem biir jàmmi gox yi. non non c'est différent c'est une coalition électorale élection locale yi bi mu paree ku nekk dem sa yoon xam coalition da ngeen ànd pour ànd dem bi defee alliance dem si élection locale yi bi mu jeexee ku nekk dem sa yoon loolu la quoi mais mais du coalition boo xam ne ko dañ dem. dañoo am c'est coalition électorale ñu ànd si même les candidats nekk dans dans le am ñu bari ñoo xam ne xamante wuñ parce que dañoo ñëw dans ce cadre là pour bëgg bokk si élection yi donc loolu la woon ko def tas ko déedéet mais dañoo ñëwoon pour yoon ku part liggéey dem noonu la amee suñu autonomie di waxtaan ak ñeneen ñi bi ñuy ñu xool ni la coalition jàmmi gox yi ak ni ko defee ak principe am vraiment ñun fa ñu doon mën gis suñu bopp ban demee ñun ñëpp ñu toog on a fait des investitures transparentes ñun ñëpp ñu nawlante toog préparé suñu programme programme lépp jox suñu position def suñu parrainage def lépp li nga xam ne war nañ ko def déposé suñu dossier maintenant bi ñu déposé suñu aussi ñu gàllankoor ñu injustement donc xeex nañu suñu manière li ñu xeex mooy quand même rencontrer tous les acteurs wax leen expliquer leen lan moo waral affaire demee noonu aussi tam pour leen Sénégal dañ ko war a péncoo dañ ko war a waxtaanee parce que inter Sénégal Sénégal dafa bari ay priorité nga xool xale yi nga xool dund bi nga xool mbay mi xool santé bi xool njàng mi xool lépp donc waxtaan yooyu moo gën a ëpp solo quand même ñuy ay bedd ay nit ñu dem si élection yi affaire parce que assemblée nationale péncoo la pour war a jox priorité Sénégal bi ñu defee seen opération péncoo nag wax ko xalif généraux yëpp wax ko ñëpp lenn ñëw gars yi te entêté wu kon na si yi def ay campagne yooyu mais comme ñun bi fi nekk dañ ko yàgg combattre parce que li muy ñun gisatuñ ko sunu gisatuñ ko si si njëriñu réew mi si sunu xalaatu bopp élection yi jot ñun non duñ croiser les bras il faut que ñu ñu ñu ñu ñu wax ku ni ku ni àndal ànd bi parce que tamit ay ñaar di ñaar dee bëree ki ëpp doole ji xeex ki ëpp doole mais bu atul def mel da ngaa sot rek da ngay da ngaa sot te comme ñun dañ ko fee bëgg a jëlee bëgg ko fee jëlee bon ñun it te ñu xoolum opposition bi ñëpp xool seen campagne xool ñëpp. encore nekk sur le terrain mais ñi nga xam ne quand même vraiment ñoo amoon possibilité pour nit ñi àndoo pour jëlee ko fi donc c' la quoi c' était l' intercoalition Yewwi Wallu et je pense que là nous a donné raison ñu ñëw ànd ak ñoom si campagne bi jàppale leen ànd ak ñoom si élection yi mu ñëw ba élection yi jox yàlla dimbali ñu may ñu dem ñu may loolu tam ñu si gërëm Sénégal yi baax a baax a baax foofu lañ toll ak l' intercoalition dégg nga donc en tant que parti alternative sénégalaise. ñëwaguñu fii doon bokk baa nangam mais ñun si coalition Jàmmi Gox bi on entretient de bon rapport ñoo waxtaan discussion boobu évaluer guñu pour xool lan lay lan est-ce que Jàmmi Gox bi day continuer ou bien du continuer est-ce que ak mais noonu lay fi demee élection yi dafa jotom nekk situation boo xam ne ñoom ñu ànd daat campagne yàlla suturaal ñu ba li ñu doon wut lépp yàlla may ñu ko si gox bi li ñu fi yéene woon donc loolu taxoon ñu mun na mun est-ce que mun nañu xaar ëllëg ca euh, gis Omar Badiane biir Yewwi Askan Wi. non on est en te lépp intere Sénégal bi nekk ma jox la benn kii élection législative yi bindoon na ni alternance Sénégal bi mu ngi si jàmmi gox yi mu ngi si mu ngi si Yewwi Askan Wi j'ai démenti génn si wax loolu. waaw on avait on cité sur les partis qui coalisaient qui qui la coalition Yewwi Askan Wi mais élection local yi man gisuma woon loolu. gisuma woon loolu donc liggéey nañ liggéey boo xam yaakaar na nan gagné te effectivement aussi bi élection yi jeexee moo bett ñëpp su ñàkk gagné moo bett ñëpp mais kenn xalaatu noonu situation mais nag lépp yàlla la ñun nangu dogalu yàlla sur cadre demee noonu donc loolu ma nga xam nekk na si mais fi ñu toll Sénégal ni mu mel actuellement opposition bi ni ñëw di di ñëw vraiment def résultat extraordinaire yi et j'en profite vraiment pour pour pour vraiment gërëm tous les Sénégalais di gërëm ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp Sénégal yëpp ñu leen gërëm sélection yi ni demee di gërëm aussi position Sénégal ni mu leeree wane ñi fi nekk kenn bëggatu leen opposition bi moo fi nekk loolu moom vraiment tout le monde est conscient de cela maintenant li si des maintenant xool nu koy encadré nu ñu koy mën a nu ñu koy mën a concrétiser au 24 février tout ça au 24 février 2022. mais pourquoi ñu ne leen te gis leen am majorité présidentielle foofee ca majorité ci assemblée nationale. mais non moom laay wax ban majorité damay expliquer dama ne c'est des élections xamante ji yow nit ki ñu gagné la ñu def élection. ñoom ñoo waroon am scrupule ñoom mën a sa ba ay 137 ñëw ba 82 majorité amuñu ko assemblée nationale amuñu majorité absolue opposition loolu la population wax sur les urnes kon la veuille ou non loo leen wax kon ñoom amuñu loolu maintenant ñoom dañoo waroon ñëw jàngat xam li population bi wax. opposition bi moo gagné. opposition sa globalité parce que ñun on avait mis en place benn plateforme de l' opposition pour que pour cohabitation au 31 juillet et loolu le résultat jox nañ raison. parce que quand on parle de l'opposition képp koo xam entre moom moo doon opposition bi loolu nekkee loolu yoo xam ne kenn wérante wu ko maintenant bu ñu demee leen kooku seen bopp la ñuy parce que gis nga dafa dafa nekk loo xam dafa daanu luy daanu bay ñëw ak gur suuf boo nekkee tam da ngay ànd ñoom di daan di lapp loolu loolu mooy problème du leneen c'est un chemin boo xam ne depuis élection locale yi mais mu ngi processus baa ngi dem te c'est un processus boo xam ne kenn mënu ko arrêter et que attends-toi euh, à ce que corrompre yeneen député ba am député yëpp dal na fi Ablaye Wade en 2018 Ablaye Wade Ablaye Wade 1978 1978 tous les députés de Ablaye Wade ñëpp dañ ko ko jëndoon mu dem député yi ñun population bi la ñuy waxal. ku si peuple boo député boo xam ne amoo conscience si li population yi bëgg nga dem fekk leen non da ngay ànd ak ñoom nga daanu loolu moom c'est un processus. d'accord foofu laay foofu laay duggee sax parce que li olof naan lu defu di waxul ay di jàmbat bërki démboo njaay rek lañ gis Pape Diop def conférence de presse ni moom day dem jox euh, président majorité bi réfléchir na réfléchir réflexion bu mûr la boo xam ne moom moo ko def personnellement ban jàngat nga de ci ralliement boobu. heureusement nga moom moo ko def <laughs> mais dama koy bàyyi foofu moo ko def <laughs> moom moo xam la la matt la la mu def ko kooku dama ko respecté parce que aussi ñu ñëpp ay nit ku nekk am nga xalaat ku nekk am nga bëgg ak looy def mais ñun mais ñun ñun politique duñ si xeex duñ si xuloo duñ si wax nit ko xal war ñu ko def nit ku nekk na respecté choix am ñu ne en tout cas li nga xam ne moom la ñu yéene askan bi ex askan bi moomal seen bopp parce que cohabitation mooy lan waxtaan la parce que président nekk buur bu mu lu ko neex def lu ko neex def ñi mu fi jiital ku nekk lu leen waaye neex def mais loolu moo dul yoon mais dara booy defal nit ñi nit ñi koy defal kay war nga waxtaan ñi ndax bëgg nañ ko bëgg nañ ko bu ko bëggul nga xool nooy nga yëg nit loolu rek mooy mooy démocratie bi te fi mu toll dialogue boobu fu mu jaar na am mu neex ko mu am mu naqari ko mu ko ne bras de fer bi aussi day gën daanam bi day gën a ñaaw rek je pense que c'est le président qui doit être au-dessus de la mu xam ne il n'a pas été de président. mais ñu ñëwaat ci Pape Diop Pape Diop est-ce que jàppoon ni dafa trahir ñu ko votel parce que ñu ko doon ñu ko votel gisoon nañ fi Benno gisoon nañ fi yeneen liste yi ñu votel ko moom en tant que bokk gis-gis mu xëy au bonjour dem mu ngi ci Benno Bokk Yaakaar di leen jàppale est-ce que gisoo ne loolu tra du trahison du trahison ak ñi ko. xam nga problème bi mooy nit ku nekk sa conscience wóor na mën ñu ko votel opposition lañ votel loolu moom c'est moom mu ñu utiliser ko leneen kooku c'est sa conscience moo ko dicté si affaire demee noonu parce que man du def ay jugement mais c'est un constat yoo xam ne koy def nit ku nekk am interprétation ku nekk am na nu ko gisee mais dama la fële mu nekk day ànd ak ñoom gën a suux la bëgg a wax parce que luy daanu kenn mënu ko téye kenn mënu ko téye mënu. nga jàpp ne bennoo daal ñu ngi ndërmeelu ñoom. kenn dara bennoo la interne bennoo bi actuellement il y a certains commencent à faire man maa la ko wax. ñun fii leen dëkk xam parti ko composé xam ni mu demee xam frustration nekk si biir léegi ku nekk dana jéem a téye mais na nga war a sonne war a dem di liggéeyu boo xoolee élection yi nga xam kenn def ko si les gens ont baissé les bras même par les responsables de l'APR bu nax nit ñi nit ki bu fekkee da nga am échec da nga naan échoué naa nga mën si jàngat sereinement nga xool yéen solution nga mën am par rapport à ça mais échoué naa ba pare échoué naa ba pare di jéem a lëre nit ñi def ay intoxication di jéem a kii bataille d'opinion affaire deme noonu kon nga xam ne bi ñu ko defee laa xam ne ñuy jeexal nañu. moom a am lii war leen découragé loo parce que ñaata nit ñoo fi transhumé ñaata nit rek ñoo nekk fi nit ñi yaakaar ñu bàyyi ko dem ñooñu bi élection ñëwee la population bi wan fa ngeen jëm ànd ñu fa ne population gëm ni ñii jeexal nañu que ñi ni jox seen kii ñu trahir leen xam ne ñooñu bokkatuñu. nan gëm li ñu gëm tam bu ñu découragé bu ñu découragé mukk mukk mukk nan kon ne si bataay bi xam ne ñoom ñoom moom dëkk bi ñoom moom seen baar yor seen carte jox ku leen ko neex mais bu ñu jox naa ko nit rek trahir ne ma defu dara damay découragé toog non au contraire nit ñi fii leen war a ñëw war a am conscience xam ni kon ña ko war a yoraguñ ko ba léegi ñi naan ñoom la ñu du ndikku ñoom. mais est-ce que dinañ ñoo ko war a yor exactement. parce que tant que ñu ngi voté ñu jox bi ñoom ñoom def leen seen leen seen warugar te ñi ma gisee dynamique bi dem si intercoalition bi ni ma gisee muy dem ah ak yeneen ñi nga xam dem day xool ñi nga xam nekkuñu candidat bokk si campagne bi ay Bougane nekkul candidat bokk si campagne bi ñun nekkuñu candidat nekk si bokk campagne bi ñoom Fadel nekkuñu candidat nekk si campagne bi des partis yoo xam ñu ngi fi di bokk si campagne bi di xeex li nga te xeexuñu pour ñoom ñu falu bon dañuy falu dan naan ëmma si intérêt du ma def leneen mais ñooñu jóg di sensibiliser population yi ni leen ñii bu leen jox troisième mandat baax ñii baaxuñu mais ñooñu nga xam ne ñooñu bëgg na Sénégal parce que ñoom defuñu campagne pour seen bopp defuñu seen campagne seen bopp parce que laay foofu laay gërëmee les les les nga xam ne def campagne te faluwuñu faluwuñu ñaare ku si gis que def campagne ba nangam nangam di muyee sama yow da ngay da yor sa kii ah, toll gars ngi responsable APR yëpp ku nekk dafa feeñ rek wane maa ngi fi mais kenn campagne ni ku nu faloon ku ku ku nu investiroon ni nga def leneen mais ñi xam ne amuñ si benn intérêt di xeex pour li jëfi kon nga xam ne ñi bëgg na Sénégal man foofu laay appelé nit ñi nit ñi nan am seen xel ak seen kii ñu xool nit ñi Sénégal yi ñu ngi fi am nañu falu am nañu faluwut mais Sénégal dafay nekk mais ñi ngi leen traité dem feneen seen problème la nañ bàyyi ñoom c'est leur conscience mais ñun nan gëm nan gëm fexe fi ñii ay ma leen fay jëlee lii moom wane ne ay ma leen fi jëlee parce que lii bëggoon ne woon élection yi bu amoon en deux en février deux mille deux mille vingt quatre mais deuxième tour day am te boobaa jeex na boobaa jeex na lii signal la daal. si non dafa dafa dafa départ dafa dem dafa xam bu signal da nga naan day waaj mais dafa nekk si yoon dafa nekk si yoon boo xam dara mënu ko téye dara dara mënu ko téye mu neex nit ñi mu naq leen yàllaa ko dogal ba pare te ndogalu yàlla da nga si da nga si da nga ànd boo defee mu noppal la mais tant que ko bëgg a def ak loo ko def yow yaa si mujj des moom rek nit kuy lab moom. boo ko joxee loxo day ànd yow boole yow la fi ñu toll foofu la président toll foofu la ak lu ñu fi a def ak lu mën a def actuellement 18 mois yàggatut di mois yàggatul moo tax de président fii da war a ñëwee jël à nekk si ko woo nit ñi waxtaan réew mënoo ko doo waxtaan la nit ñi. jàpp nga ni daal euh, Pape Diop il a choisi le mauvais camp. ñuy wax mu suñu kanam parce que l'avenir moo ñu koy jox parce que ñi nga xam ne da ngay xool benn da ngay xool élection euh, février la woon quels sont les maires qui étaient dem fa maire yi nu leen def maire yi dañu dig ay ay au conseil euh, <laughs> ah, ah, donc xoolal xoolal maire yooyu te danoo nekk maire ñu dem kan moo si gagné wax ma rek kan moo war rek am si ndam. wax ma fa tirbal ma Sénégal gépp loolu rek laa bëgg nga gis ko mais donc ce qui est wóor mooy nit ñi xam nañ leen bëgg yor nañ carte yi ñi fi nekk baaxuñu ne leen fi jëlee bu soobee yàlla yonte bi mais nañ ko def si jàmm def ko si lépp gën a sensibiliser nit ñi gën a liggéey gën a liggéey ñu connaître dynamique dynamique bi bu ñu ko demee président Macky Sall góoma sax kandaam sax na nekk sax na génn sax si si si deuxième tour bu dee day am voilà on va gagner ces élections là au premier bi gars yi d'accord tey li ma lay mujj sama mujjantalu laaj rek mooy assemblée général tey lan mooy avenir am parce que ñu ngi naan le 4 septembre lañuy ñuy fal collectivité euh, locale yi euh, ñu ngi naan waa euh, Yewwi Askan ñu ngi naan ñoom dañuy boycotté boobu la élection duñ ca dem tey ji assemblée nationale lan nga yaakaar ni moom mooy avenir am. bon tamit vraiment que décision bi Yewwi bi intercoalition am ñun si la ñu parce que nous avons des conseils municipaux élection dans toutes les communes yi nga xam nekk na fi ñun aussi on va boycotter ces élections duñ sem si HCCT bi HCCT ban njëriñ la fi am mais dama bëggoon aussi boycott bi assemblée nationale et def évaluer gis nga gis nga loo fi dekk da ngay xool bu baaxee nga xam ne baax na nga continuer ko li ngay def fekkee baaxut nga xam ni baaxut bu baaxut nga nga nga mën ko nga mën ko nga mën ko nga xool noo ko jubbantee mais HCCT da ngay xool yenn organes yi yëpp yëpp moo moo concerné la décentralisation concerné les collectivités locales affaire demee noonu donc nga xool te le te le Haut Conseil il n'y a pas seulement que les que les aussi des nominations yoo xam ne kenn mën ko wax pour ñu koy gager majorité donc vraiment c'est structure boo xam ni am na yeneen priorité yoo xam ne fa la ñu ko doon def parce que Sénégal yi sonn nañu sonn nañu si côté yëpp loolu moom loolu moom nit ñi waroon ko xam sonn nañu si côté yëpp comme sonn nañu yëpp nag dana war a seen jafe-jafe ñu jëm jéem a xool wut si jéem a liggéey parce que assemblée nationale ce qui est sûr dafa amoon dootu fa déjà loi organique kenn mëntu ko changer parce que pour nga ko def il faut nga am ce appelle la majorité qualifiée mooy les trois cinquièmes moom moo mën fi mu toll nii donc une majorité simple ah une majorité simple am li ngay def mooy voté jàll na voie la simple yooyu ma mën def maanaam loo xam ni mënatuñ ko def. te bu amoon majorité qualifiée mën nañu mënoon ñëw gën a changer code a changer constitution bi ba gën a jox possibilité Macky troisième mandat def ko si base yu gën leer yoo xam ne amul na def mais fi mu mënutuñ ko def fi mu am na droit bari yoo xam ni fu ñu jaar waxtaanee ko loolu mënta nekk bureau assemblée bi ñu nekk fa duñ sédd kenn baa bu ñu sédd benn parce que dañ ko sédd mënutu nekk il faut gars yi ko toog ku nekk nombre bi nga am nga am si commission am si kan liggéey liggéey bi benn groupe mënu ko def kese il faut que ñëpp bokk si loolu nag bu si nit ñi bokkee ni ñu jël intérêt Sénégal kon defe naa nañ gën a tenir compte si préoccupation population yi waaw mais loolu nekk au dessus de nit ñi waxtaanee nit waxtaan si bu ko ne lii baaxoon moo wax lan moo tax mu ko def nit ñi waxtaan si ba juboo bu ko defee loolu mooy mën dox élection mais fekkee nag bras de fer la moom moo koy indi du leneen du leneen du assemblée moom vraiment nam meloon nat na tane ren na waaw ah, li ma ne moom na taw ren moom loolu moom leer na. <laughs> fu ñu meloo dina tawee ren kon ren xanaa dinañ gis assemblée boo xam ne du am xeexoo xuloo xiroo ŋaayoo. loolu di gisee fii Sénégal. loolu la ñuy ñaan mais avantage bi ren. fee bu 80 jógee 80 jóg fii def naa ne équilibré fee da ngay gis benn député opposition ñu koy yuuxoo yéen ñëpp nekk fa di tàccoog affaire demee noonu ba xam du am du am lu wax mais tey jii à part égal leen fay nekk. ku nekk dañ gën a sàmm seen bopp xool xool ni doxalee seen biir defe naa ni nit ñi jàngal nañ leen fi ñu doon li war a def mooy ñoom jàngat si mas euh, masawu mboolu masawu Sénégal yi parce que Sénégal dañ leen a mere wane ni mere nañ leen ñu mas nu si jéem leen a promettre pour def quelque chose de meilleur pour au moise que nit ñi xaw leen a yaakaaraat mais fi ñu toll nii moom xam na ni nit ñi doy nañ si ñoom bu leen neexee nag nañ tëdd seen kii ni gagné nañ déet fa di saw sa bopp boo jaaxaane naa sa bopp sa sa sa sa bopp sa bopp nga gën a tooyal sa bopp a kiyal mooy suñu base vraiment nekk fi le premier nag ñafe nag premier parti au Sénégal dans toutes les régions dans toutes les localités loolu dama ñu ngi koy sant suñu borom mais au moins ñu ngi continuer liggéey bi parce que ñun duñ xaar ba élection jot ñu taam di jóg duñ xaar ba élection nekk ñu taam di jóg waaw donc ñu ngi nii di liggéey di organiser wu di préparer 2024 2024 ku samp suñu dënd bëgg nañu samp suñu dënd ñëpp waaw bëgg yàlla may ñu dem jiite réew loolu moo ñu tax kon boo fi toll il faut que nit ñi gëm seen bopp ñoo xam ne Thiès dafa am redistribution politique boo xam nekk na fi ñi wan nañ leen li fi nekk li fi nekk fi nekk ñëpp yàlla dafa dafa leeral dem nañ rallier ji ñoom ñëpp na comme bool na leen benn saako suul leen defe naa ne loolu moom loolu moom nit xam na ne ñu nekk population ak nekkut ak population bi donc kon ñi gëm population il faut qu'on les organise il faut qu'on les encadre ànd ak ñoom ba suñu objectif ñu mën koo jéem a def en tout cas daal nous sommes nous avons un parti politique bëgg nekk parti yóbbaale ma da doon nekk parti boo xam ne mooy dirige Sénégal loolu mooy suñu ambition loolu mooy suñu ambition et que nit ñi aussi nan bàyyi xel si leen gis nga cette coalition intercoalition du question luy tas yi parce kii c'était pour les élections législatives élection présidentielle ba amee ku bëgg nekk candidat da nga ko da nga nekk candidat bu ko defee ka jiitu ñeneen ñi bu ko gagné dem parce que parce que gouvernement bi ak ñii nii ñu kenn du kenn du duñu boole suñu say mu nekk benn candidat il faut mu am ay candidatures dispersées attendons-nous à ça candidat dispersé na bu nit ñi gaawantu nag tas na tasut déedéet li c'était des coalition électorale élection législative boo xam ne moo leen may li ñi mën a ànd ñooy ànd jiital kenn mais il faut comme qu'il y ait une pluralité de candidature yoo xam ne ñoo koy war ndomba bu ñu ko wëree ndomba yóbbu ko deuxième tour bu defee daaneel bi day gën a day day day day gën yomb moo tax nit ñi bu naan fii ngeen bokkoon ku nekk nekk na candidat tas na loolu dama bëgg préparer les populations ñu am xel si loolu c'est des stratégies politiques ànd mënta nekk benn mënta koon ne dem il faut que le PDS mu am candidat il faut que Yewwi am candidat il faut que il faut que ñun ñu nekk kandaa ñeneen nekk candidat ñoom Bougane ku nekk nekk candidat bu ñu demee nag maintenant nag ñun ñëpp ñu am benn pacte boo xam ni bu ñu demee ku jiitu nit ñi ànd si moom loolooy loolooy loolooy yëfi 2024 bi. benn li laaj da taxaw teem ngir sosatoo nguur gi fi. très bien li may li may laaj opposition bi opposition bi ñun dundi ay noon suñu diggante il faut qu'on qu'on arrive à se parler. il faut que ñuy waxtaan bàyyi yenn débat intérêt yi nga am na si ñun ñun benn adversaire lan am mooy ki yàq réew mi ki nga joxante gën a doxante naawal kii suñu gën a waxaa gën a waxante di waxante bu ñu waxtaan nan gën a xamante si kaa demee noonu que yenn erreur yi am entre des partis d' opposition entre les leaders loolu duñu jëmale fenn nan ko bàyyi teg ko suuf ñun ñëpp ku nekk nga concentré nga liggéey sa liggéey xool la mi may ñu am benn adversaire muy pouvoir bi fi nekk xam ne moom la fa bëgg a ñu ànd ak moom ñu jëli ko fi élection présidentielle mu nekk ku bëgg a candidat nekk candidat ba nu pare ñëpp ñu waxtaan ñu signé ku nekk premier tour ku jiitu nit ñi ak yow bu ko defee nit ñi liggéey liggéey bu baax liggéey bu yaatu boo xam ni gouvernement bi sax du nekk sax kon si deux yi nga xam sax mën nañu choisir sax pour ñu génn deuxième tour donc loolu laa coalition boobu ne leen wóor ni ña fa nekk am na ay candidat yoo xam ne ay candidat présidentiel pour moom damay anticiper parce que xam naa fi jëm euh, day am candidat ñu nekk dem liggéeyi na parti bu nekk dem liggéeyi bañ liggéey si coalition yi nga gën a massifier nga gën yaatal ba boo nekkee sa candidature nga mën am le maximum d'électorat ba xam ne nguur gi day gën a day day day day day day day day ñàkk bu baax a baax donc loolu tamit vraiment il faut il fallait que ma lance un appel à mes amis de l'opposition que xam ni ñu bañ a tromper adversaire ñu bañ a adversaire suñu adversaire mooy mooy mooy le pouvoir ñun suñu biir dana war a compléter si demee noonu ñëpp xamante nañu ñëpp nous sommes des patriotes fi lañu jàngee bëgg réew mi ku nekk am nga noo xalaatee nii lañ koy defee loolu daal lay appelé nit ñi daal que daal que ce débat soit un débat boo xam daal dafay dañuy ñëw nekk un débat boo xam daal dañuy fexe wax nit ñi jëm a xam seen préoccupation gën leen a jigee n'attendons pas les élections pour ñëw ni ñu tànn woon di liggéey nañ ko continuer di ko def waaw nous sommes un boo xam ne duñu xaar mukk ba élection jot ñuy ñëw ñun toujours nous sommes sur le terrain bëccëg ñoo ngi liggéey li war a liggéey politique du métier mais nag say nit da nga leen di jege di nekk ak ñoom di dugg si askan bi di xam li bëgg loo sa mën a faj faj ko a faj nga kii ko loolooy politique loolooy politique encore une fois vraiment maa ngi gërëm Sénégal yëpp di wax gouvernement bi na reconnaître défaitam le gouvernement a perdu a échoué le gouvernement a perdu ses élections na ko gëm tant que gëmu ko rek ñu xam ne narta liggéey bu ko gëmee nag ma mais àdduna da ngay gagné di ñàkk boo ñàkkee tey nga ni ñàkk na nga jàngat si xool noo koy redressé mais tant que ñu ngi ñëw de bataay bi ñoo ñoo gagné ah nañ ñu jaaxaante soo rek ba xam ku ni tooyal. <laughs> d'accord mu ngoog <laughs> mbokk internautes yi ñun ñoo ko déggandoo ñu seet si woon euh, tey ji Omar Badiane rek fii ci Kër Cheikh euh, ñu sekkoon nag moom nag waxtaan bu yaatoo yaatu jëmale ci wàllum politique euh, li fi jot ta xew ci semaine bi ñu génn nag pendant élection yeeg yëpp mu mel ni dégg ngeen ko bu baax dégg ngeen ay kàddoom fii rek la ñuy tàggatoo yéen di leen jox dig daje ci beneen plateau beneen émission rek jaa ngeen jëf